salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum waa Sénégal gi yëpp laa koy wax waxoon naa leen bu may kaawaat ci théâtre kat laay commencé bu siw wala journaliste bu siw lu leer laa leen di wax barki alxuraanul karim Leena Gueye mi bu deful attention carrière ci série gaw ma ne dana egg man nag du ma waxantu du ma menace nit sama baat dafa dee mais benn affaire laa leen di wax barki alxuraanul karim boo continuer di simbi say taat di simbi sa slip ci série yi ñàkk fayda jigéen da ngay am dignité am ful la sa bopp Balla Gaye yàllaa ko suturaal ba amul ne ku mel na yow mais bu continué woon ak yow fu mu jëm Balla Gaye yàlla sàmm na la te suturaal la leenaa mi jàpp dataam bi ci série yi di simmi rek man na ku yor usinu lëf un deux trois mu sindi silibam bu ngeen jekkee-jekke gis ma naan ne salaamaaleykum kii mooy Leena Gueye te man lu ma mës a wax def ko kat ndayi vidéo yi bu kenn wax man xam nga du ma waxantu attention cottu nag